mu yabal nu nu ànd ak soxna Bali Muntaxa ngir ñu ñëw ci seex Mouhamadul Basir moom seex Abdul Xaadir addiya jii ngeen gis teraanga ji seex Mouhamadul Muntaxal basiir moo ko yable ci yow ngir mu doon loo xam ne kàddug seere la ak kàddug cant ak loo xam ne ngërëm lu jëm ci yow waaye jëf jii nag day jëf joo xam ne moo koy seere moo tax mu yabal kii mu yabal ngir mu seere ko sëriñ baa ngi lay sant yow seex Mouhamadul Basir di la gërëm ci mboolem taxawaay yi. nee na sant na la gërëm na la liggéey bi nga xam ni day liggéey sëñ tubaa bi mu agsee ci moom nee na da nga ko ne daan bàyyi woo ko benn yoon taxawu ko ci biir taxawu ko ci biti mboolem liggéey sëñ tubaay yi ànd nga ca moom saa bu xalaat jotee nga ànd xalaat ni ñëpp waaye saa bu jëf jotee nag nga ne ko bàyyil ma dem jëfal la sëriñ baa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nag yàlla na nga dajeek la sa maam ne woon wax di xawaay ijël la siina daamoo fii xidmat yi wa xëblahum maaraamu nee na nag dëgg-dëgg biir bi nag mooy daamoo fii xidmati mooy ñi xam dañoo sax ci liggéeyal sëñ Tuubaa te nee na yow ci loolu rek nga ne lu jiitu loolu nag da ngay cërub Cheikh Mamadou Bassir ci biir kër Serigne Abdou Khadir kon moom daa am ci yow cër ay yooni yooni yoon Serigne baa ngi lay sant mi ngi lay gërëm. rahmatulahi taala wa barakatuhu. soxna Bali Serigne bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax. na mi ngi lay siyaare. nee na bis bi nga xam ne yéen ñaar yéen a ko bokk. nee na ci fànn yëpp nag nee na mi ngi jël ab siyaaram di ko yóbbante ci sëriñ bi di la ko yóbbante muy sëriñ Mouhamadou Mountakha nee na ñu ngi ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak nee li tax wax ji diis ci moom nag nee diggam ak sëriñ bi ak cantante sax da cee war tam ne caraange jiitam itam. dafa bëri bëpp. ne daa bëri bëpp. ne waru ko te loo xam ne waru ko sax ci digganteem ak moom. ndax ne Serigne Touba moom. di fa di fa yóbbu. di moo gën di fa jëlee. sëriñ gën di daa waxoon ne. nee na kër sëñ tubaa di fa yóbbu. jëlee. ndax boo fa dee yóbbu. da lay gën a yomb rek. mais boo fa jee jëlee nag. loo fa jëlee doo ko mën doo ko mën a amati. te sëriñ bi. te sëriñ bi. Cheikh Mamadou Mountakha. yàlla da koo defal ci moom mi tawféex. tawféex yoo xam ne dafa yemb ci mbiram. damaa ci mbiram. daf koo yee ci mbiram. ma xam fi mu àgg. mu xam fi mu àgg. ci diggam ak boromam. ci te moom fi mu àgg. xam fi mu àgg. xam fi mu àgg. xam fi mu àgg digganteem ak Serigne Touba. ndax moom jëmm la joo xam ne. ndax jëmm joo xam ni. dafa xam àdduna. dafa xam àdduna. dëdd ko sànni ko. dëdd ko sànni ko. yittewoowul dara lu mooy Serigne Touba. yittewoowul dara lu mooy Serigne Touba. léeg-léeg ñi ñi mu bokkal Serigne Touba. dama leen di wax ne. da leen di wax ne. Serigne bi de. Serigne bi de. ku amut ci moom lu baax. ku amut ci moom lu baax. doo ko am. doo ko am. ndax mboolem li koy maye. ndax mboolem li koy maye. daje na ci moom daje na fi moom. ndax ku dem bay bay jëmmi Serigne Touba. ku dem bay jëmmi Serigne Touba. te foo ko fekk. te foo ko fekk. ma ngi ci alxuraan ja. ma ngi ci alxuraan ja. ma ngi ci xaside ya. guddi gi day fanaane naafila ba bët set. mais guddi gi sëñ Muntaxa day fanaane naafila ba bët set. foo ko fekk jàkka ja moo koy jiite. foo ko fekk jàkka ja moo koy jiite. jox na ko yitte. jox na ko yitte. ba mel ne duggaatul lenn ci wala waru ko booleeg leneen. ba mel ni bëggaatul dara ci àdduna wala waru koo booleeg leneen. wëlbatiku walbatiku nag. kilifaam yi mu fi nekkaloon. kilifaam yi mu fi nekkaloon. mu tarbiyewu leen. mu tarbiyewu leen. soxlawut dara. soxlawut dara. ba seen gërëm. ba seen gërëm. li ma gën a ci moom nag. sëñ bi ne li ko gën a yéem ci sëñ Muntaxa nag. diirub Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di fi nekk. diirub Serigne Mouhamadou Lamine Bara di fi ne. diirub Cheikh Sidi Moukhtar di fi nekk. diirub Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke di fi ne. muy dox seen diggante yi. ne muy dox ci seen diggante yi moom mii. mosuma dégg xalaatam. mësta dégg xalaatam. lu weesu lu jóge ci sëñ bi. lu weesu lu jógee ci sëriñ bi. da koy def da koy def te du ci am xalaat. dem na ba doon sëriñ Tuba. dem na ba doon sëriñ Tuba. ma door a xam ko mu doog a xam ne sëriñ bi nag ndeke kenn ku ko xalaat. loolu nag nee loolu nag. lu jafe la lu jafe la. kon yàlla nañu yàlla dimbali. nee kon yàlla nañu yàlla dimbali. ba ñu am pasteef ci moom. ba ñu am pasteef ci moom. liggéeyal sëriñ Tuba. te sellal ko. soxna Bali sëriñ bi ne mi ngi lay sant bu baax. sama digg moom. nee sa diggante seen diggante yéen ñaar. daanaka du lu jar waxati sax. nee du lu jar nu koy waxati sax. ndax képp ku xam aw turam rek. ndax nee ku xam saw tur rek. xam sama tur xam aw sa am xam aw turam. xam seen diggante. ndax ba may nekk sëriñ son bu. nee ba muy nekk sëriñ son bu sa waajur wa. nekk ca daara ja. ne ca daara ja. la daan ñëw këram. la daan ñëw sa kër. boo wàccagul sa alxuraan. boo wàccagul alxuraan. kon loolu du tey. ne kon seen diggante du tey. waaye nag melokaanam yàlla melal. waaye ne nii la la sunu borom melal nag. musuma xam ci ne musul xam ci yow ak coppiku. mooy bëgg nit. ne bëgg nit. bëgg sëriñ Touba. bëgg Serigne mën a teral nit. mën a teral nit. am yërmande. am yërmande. ba fàtte boppam. ba fàtte sax sa bopp. nee na lii xam na ko ci yow. bëgg njabootu Serigne Touba gi. bëgg nag njabootu Serigne tubaa gi.

booba sëriñ bi doonagul sëriñ Touba. booba sëriñ bi doonagul sëriñ Touba yàgg na. mu may sant bu baax. nee mu koy sant moom mii bu baax. sa diggante eh, yéen ñaar. ba wax ci wax joo xam ne. ba wax ci wax joo xam ni. mu ne su ko wax sax ci rajo. nee loolu téye na ko. te jàpp na ko nag. nee na moom nag diggantee ak moom. le sëriñ son bu daan wax sëñ Abdou Lahad rek. waaye jàpp na ne moo ko gënal waaye jàpp na ne moo ko moo ko moom mii moo ko gënal jëmmam. mën a doon rek. ndax lu mu mënti doon rek. mu nekk ci jàmm. mu ne ci jàmm. te moom mu yenu ko. muy te moom mu yenu ko. mu yenu coono yi. mu yenu coono yi. moo ko gënal man ma ne ci fitna. moo ko gënal moom mii mu ne ci fitna. ci fànn yëpp nag ci fànn nag. na kon mi ngi sant sëñ Muntaxa bu baax a baax. nee mi ngi lay sant yow soxna Baali bu baax. di ko seeral nag Serigne Touba nag. nee li ci xam moom. nee ak li ci yëg. mu ne su koo wax. waaye ne dañ koy bàyyi ak waaye ne mu ne dañ koy bàyyi ak Serigne Touba. maamam. mu fayal ko boppam. mu fayal ko boppam nag. taxawaay biir. taxawaay biir. taxawaay biir. ne taxawaay biir. ak yu yi ak yu biti yi nag. lii itam bu ngeen gisee mu def ko. ne lii itam bu buñ gisee mu def ko. li ci Serigne bi jublu. li ci sëñ Mountakha jublu. mooy xam sama diggante ñoom. ne xam seen diggante ñoom ñaar. moo tax ne baaxul sax ko yónni ci lu mel ne moo tax waaye baaxul sax di ko yónni ci yu mel nii. ndax am na ñu ko mën a yónni. am na ñu ko mën waaye dafa am lu ci sëriñ bi jublu. ak lu mu ciy junju. am na kilifa gu mag. ne am na kilifa gu mag taxa. moo toog sëriñ bi toog. nee na mu toog sëriñ Muntaxa toog. sëriñ bi tudd ko. nee sëriñ bi tudd ko. daal na ko moom di diggam ak sëriñ Bass. daal na ko moom di diggam ak Seex bas sañ-sañ bi sëñ Bass am ci moom. nee sañ-sañ bi sëriñ Bassirou am ci moom. daanaka oomu ko ci man oomu ko ci moom. nee loolu mënees ko weesu nag. nee loolu rëy na rëy goo xam ne. nee teg sëñ bi ku ko xam. bari na mas laa bari na maslaa lool. waaye baat bu la wax rek. waaye baat bu mu la wax boo ko toppee. boo ko toppee. xool na ko bu baax xool na ko bu baax. ndax du wax lu mu gëmul. du wax lu mu gëmul. du jëf lu leerut ci moom du jëf ci moom. kon nag soxna si sëñ bi ne mi ngi lay sant bu baax. di la ñaanal ci barke Sëñ Tuubaa ne lii ngay liggéeyal sëriñ bi tam ëpp fanweeri at ba làq ci ngërëmam ngërëm loolee ne ñëpp mën nañ cee defaru ndax ne moom xam na ni loo xam ne mënee su ko wax ci biti waaye li ngay liggéeyal sëriñ Tuubaa ci biir yoon wi sëriñ bi ne xam na ci ñaar yoo xam ne rek bu ko nettali woon